yàllaa ngi sàkk lépp ci kaw kàddoom moo nekkal lépp ci nu mu ko soobee yàlla moo naan nekkal rekk mu nekk moo sàkk asamaan sàkk suuf sàkk géej moo sàkk lépp luy dund jën yi ci géej gi ngennaaw yi ci asamaan ak rabi àll bi loolu lépp ci kàddoom la ko sàkkee ba mu amalee loolu lépp borom bi daf see bég gis ni lépp jaar na si yoon